ñi nga xamante ne ñooy journaliste yi léeg-léeg da ngay taxaw wala bokk ñi ñuy invité ci télé yi da ngay déglu télé bu nga xamante ne da ngay yaakaar ne waa jii di waxte ma nga ca biir assemblée ba te fekk loolu yëpp amul ñuy defaraat war a defaraat li nga xamante ne mooy toogaay yi émission yi boo fa demee c'est pas parce que da ngay dem rek pour ñu xam yow yaay kan nanga dem nga yóbbu xam-xam na nga dem nga yóbbu respect nanga dem nga xam ne ñi ngay waxal ci biir assemblée bi wax dëgg yàlla suñu amul woon li jar ñu dugg ci assemblée bi duñ fi dugg donc loolu jar na bu baax a baax a baax sénégalais yi bàyyi ci xel tey ndax ku nekkoon démb rek ku nekkoon ku nekk euh, tey rek yaay nekk démb loolu amul benn souci ci àddina parce que nit aussi loolu la yàlla tëralee yépp mais nañu respectante suñu biir tey gërëm bu baax a baax a baax a baax président assemblée nationale wax dëgg yàlla muy euh, pouvoir opposition d'aujourd'hui ku nekk xam nga ne ànd na ak dal ci liggéeyam am na respect ci doomu aadama yi ndax liggéey loolu kese lañ ci wutu ba nga xamante ne fu ko yàlla yemale mu yem fa di nuyu ñëpp di ziar ñëpp te di leen wax euh, bonne continuation monsieur le ministre avec ton équipe euh, di la ñaanal jàmm bu baax a baax a baax parce que lépp rek ci liggéeyu Sénégal la jëm ci Sénégalais yi la jëm les Sénégalais d'extérieur comme lu mel ne le Mali que je suis maa ngi leen di nuyu aussi di leen bàyyiloo xel bu baax a baax a baax fii ci Sénégal di bàyyiloo ñi nga xamante ne tey ñoo nekk au pouvoir à l'extérieur rawatina Afrique de l'Ouest fu mel ni que ne Mali nga xamante ne tey képp koo xam Afrique de l'Ouest xam nga ne Mali netti na lool lool lool lool te looloo ma gën a tax a taxaw fii kon nag ma bàyyi leen ci xel bu baax a baax a baax ba nga xam ne ëllëg si biir lépp lu ci mën a am ngeen bàyyi xel ci biir Mali Afrique yëpp lu ci mel ne Niger Burkina Togo ñi nga xamante ne yàlla def na ne foofu man seen député jërë ngeen jëf. Merci, chers collègues. La parole ñetti yoon ñetti yoon gën saa néew ci ñaari at yii weesu j'ai posé la même question lan moo tax en deux ans ma bind vingt propositions de commission d'enquête parlementaire président ak bureau bi duñ ko xool li ma tontu loolu nga ma tontu loolu la ma ñeneen tontu ñii naan c'est pas l'ordre du jour ñu dàq ko vous pensez que c'est sérieux Non, les droits, ce sont des droits. C'est pas une question de méthode. On respecte les droits des députés. xam ngeen lii lu muy tekki mooy règlement intérieur bii ñuy changé en réalité du démocratie moo ko lal du bëgg lu jub moo ko lal du jubbanti moo ko lal ndaxte jub jubal jubbanti bu ko laloon kon ñu respecte règlement intérieur ne règlement intérieur am na solo premier ministre ñëw fii am na solo waaye proposition d'enquête parlementaire qui parle des salaires de vingt cinq mille travailleurs du FERA qui courent derrière huit dix douze mois d'arriérés de salaire moo ko ëpp solo wala ñoo yem solo lii lay tekki l'Assemblée nationale en réalité je ne vous parle pas vous vous causez du tort parce que en ayant cette posture da ngeen di wan askanu Sénégal ne liggéey liggéeykatu FERA yi seen yoon newu ci vous pensez que mën ngeen di xas vous pensez que man ngeen di xas déedéet du man ngeen di xas douze mois d'arriérés de salaire ñu ne nañu taxawal commission d'enquête parlementaire ngeen lànk ba tëdd ci suuf voilà ce que vous dites aux travailleurs du FERA li ngeen di wax mooy yéen liggéeykatu hôtel King Fahd Palace assemblée nationale deuxième institution de ce pays yéen seen situation yittaluñu voilà ce que vous dites aux travailleurs du King fat Palace King Fahd Palace mi nga xam ne état du Sénégal moo ko moom ñu sàcc ko ñu toje ko ñu lekk ko ñu seeñu ko assemblée nationale ne patt toog seetaan li ngeen di wax mooy ah oui dama bind gouvernement ne ko gouvernement bu Sénégal falene bi s'est déclaré en état de mort clinique depuis qu'est-ce que le gouvernement a fait le gouvernement a annoncé un projet de décret ngir orpaillage bi ñu dakkal ko ci Falémé en même temps ma interpellé assemblée nationale par une commission d'enquête parlementaire assemblée bi duma ko xool ndax lan ndax lan vous êtes en train de dire aux de Saraya aux populations de Bakel la situation de la Falémé qui est en état de mort clinique depuis en train de dire mais vous êtes également en train de dire au peuple sénégalais que assemblée bii dañ ko war parce que c'est une assemblée antidémocratique parce que c'est une assemblée boo xam ne dafa xiif Ousmane Sonko Ousmane Sonko kaay ñu lekk la dañoo ci nga ñëw mais la situation des travailleurs du FERA ne vous intéresse pas la situation des enfants yiy lekk Lido yiy et dont on dit que c'est hyper ne vous intéresse pas mais la situation également des jeunes du programme Xëyu Ndaw ñi ne vous intéresse pas parce que dama déposer commission d'enquête parlementaire ngeen lànk bañ ba tëdd ci suuf ne du ngeen ko président bi ndeysaan mu toog rek mu toog rek ndeysaan xamul lu muy wax ngeen foog ne dëgg la ñu naan ce n'est pas à l'ordre du jour quand est-ce que ce sera à l'ordre du jour et où est-ce que ce sera à l'ordre du jour monsieur le président ngay wër naan waaw c'est-à-dire Guy Marius Sagna dafa war a waxtaan ak yeneen député ñu soutenir ko ban soutenir le règlement intérieur me donne le droit de déposer des propositions de commission d'enquête parlementaire il y a parmi vous qui sont honnêtes qui sont respectables et respectés et qui se taisent sur ces injustices qui se déroulent depuis deux ans vous le savez un droit il doit être respecté vous ne faites pas contre moi mais vous le faites contre les jeunes du programme Xëyu vous ne faites pas contre moi mais vous le faites contre les paysans parce que j'ai déposé une proposition de commission d'enquête parlementaire pour ñu xool engrais bi ji yi ak matériaux agricoles yi fan lay dugg vous ne le faites pas contre moi mais vous le faites contre les populations des villages qui longent la Falémé ku nekk ne pat waaye ay bu nekkoon mbiru poste ay bu nekkoon mbiru poste ay bu nekkoon mbiru pal di ngeen màbb di xëccoo waaye comme il s'agit des travailleurs du Feera ngeen ne comme il s'agit des travailleurs de l'hôtel Kingston Palace ngeen ne pat comme il s'agit des paysans ngeen ne pat dissolution de l'Assemblée nationale euh, la parole Ba euh, une précision de taille je pense que bu muy wax mi ngi wax président di wax ak ay député je pense que waxul président assemblée nationale bu fekkee man ngay waxal je pense que di nga juum parce que jàpp ma ni am na fu may tudde sa tur may wax may jox parole bi Amadou Ba vous avez la parole Merci beaucoup, Président.